alquran e, daa mbokki téléspectateur gis ngeen ko la actuellement ni dama obligé ma jóg parce que dama amoon doo ñaari gan yu punkal euh, mu nekk euh, monsieur Guèye ak euh, monsieur monsieur Ndiaye ci monsieur Guèye laa koy tàmbalee monsieur Guèye ma bàyyi la nga nuyoog ñu ñuy seetaan. salaamaaleykum maa ngi tudd Yoro gay je suis membre CD de la zone 1 de Pikine je suis aussi chargé de la communication de la page Facebook de la zone. Euh, euh, mu monsieur Guèye ñu gis ni actuellement ni euh, def nga sa liggéey ba ñu toll tey jii ci li nga xamante ne moom moo nekk grande finale bi ñu bëggoon a xam ah, yow ci sa branche bi nga yore woon naka nga ko paree woon ba fi ñu toll nii ah, yan disposition nga ci demee woon ba ñu tollu nii ci bi ok merci pour ce qui concerne la finale on est allé visiter toutes les équipes finalistes que ce soit en cadet en vétéran et en senior on a fait des reportages. D'ailleurs, toutes les vidéos se trouvent sur la page Facebook. On a interrogé le président de l'AIC, le président des supporters, le président de la sécurité et fair play. Parce que sans le fair play, on peut pas jouer dans un match, dans le match. Parce que match, violence, on a privilégié le fair play seeti ASC yi seeti président yi seeti président supporter nekk ñu jël sa message pour la finale d'ailleurs on a publié tout ça sur la page Facebook. d'accord euh, ci beneen côté bi euh, ñu ngi fa ak ki nga xamante ne moom moo nekk euh, monsieur Ndiaye monsieur Ndiaye asalaamaaleykum. waaleykum salaam waaw maa ngi leen nuy ku nekk sa tur ak sa sant. Uh-huh. maa ngi tudd Tamsir Ndiaye. Uh-huh. nekk délégué fii ci zone une di président commission médicale de la zone 1. d'accord d'accord euh, monsieur Ndiaye euh, ma bëggoon a xam euh, sa liggéey ci biir zone bi naka la demee woon ba ñu toll fii ci final. waaw liggéey bi tout d'abord dañuy remercier la le médecin chef bi nekk Dominique ñu naan ko Bouba Diop di ko remercier parce que depuis le début ba ñuy débuté jox nañu ay dons boo xamante ne ci ay boîte de pharmacie pour toutes les ASC les neuf ASC de la zone une ñoom ñëpp ku si nekk jot nga sa boîte de pharmacie c'est un geste à saluer waaw. loolu daal laa doon wax quoi. d' accord ma bëggoon a xam euh, monsieur Ndiaye est ce que amoole woon ay problème ak ay nga xamante ne dañuy ay problème mu xool est ce que il vous arrive ngeen xool li nga xamante ne moo nekk euh, état de santé wu joueurs yi balaa ñu dugg si bi. waaw euh, loolu moom foo mënti dem moom mënoo ko garanti à 100 pour cent parce que bu ñu nee mouvement nawetaan rek parce que nit ki muy ASC fi nga mënti nekk muy zone bi chaque jour day am ay manquement day am ay manquement parce que Euh, la Croix-Rouge sénégalaise ñoom ñoo ñuy jàppale ñoo ñoo ñu fiy teewal si match yu bu ñu organiser parfois dañuy organiser quatre matchs si benn journée donc ñoom ñooy assurer intérim bi te laa moom lu ñu fi war a def premiers soins yëpp dañ koy def su xawee metti dañ koy yóbbu hôpital loolu daal ñu ngi leen siy remercier bu baax waa Croix-Rouge. d'accord monsieur Guèye euh, ma euh, monsieur Ndiaye ma dellu tuuti euh, a xam sa liggéey bi ci biir Facebook bi ci biir réseaux sociaux yi naka la demee woon est-ce que amoo ci woon ay difficultés yoo xamante ne yaa ngi ko doon rencontré ba ngay dem booy waaw man peut-être je dis que j'ai la chance d'être euh, ingénieur en informatique donc au moins je maîtrise les nouvelles technologies de l'information et de la communication et comme qui dit rek adduna bi y beaucoup de moyens de communication mais lu jaarul léegi réseaux sociaux yi rek on dire on dirait que pour cent wala 20 pour cent population bi ñoo siy jot. ce qui fait on a privilégié de mettre presque 100 cent de nos informations dans les réseaux sociaux. xaw na métti xaw na jàpp parce que nawetaan kii di nawetaan rek y a ce qu'on appelle l'aspect mystique parce que des fois joueurs yi des fois dañuy bañ xam ñu jël seen foro parce que dañ naan affaire mystique daal mais ñun au moins on a xaw nañ ñu yar au moins xam nañ ñuy aborder les gens xam na aussi nan la ñuy waxtaanee ñoom. amoon nag un peu difficulté mais je pense que j'ai tout géré mais comme lu ñuy wax rek la communication y a la connexion internet et là là-bas aussi damay lancer benn Parce que qu'au Sénégal, la connexion Internet est très, très, très chère. Très chère. Très chère. Pour se connecter, il faut acheter une passe ou soit voilà, une connexion Wi-Fi. te loolu monde a une boobu D'ailleurs, la le lance un message pour, à l'État. Parce que tant que n'y la concurrence, il n'y aura pas des faveurs pour la population. Si rek a un concurrent, les prix vont diminuer. Et par rapport aussi à la page, y a beaucoup parce qu'il y a des personnes qui sont à l'extérieur ñoom dañuy bëgg am résultat équipe bi mais ils n'ont pas le moyen pour avoir le résultat léegi sur biir page yi la amee résultat yi ils demandent des informations de ce qui fait même marché bi match vétéran yi c'est en direct dans la page ku dugal bi yeeg heure bu mu ko dugal ak kan moo njëkk a dugal ak mit score à la mi-temps score à la fin score yëpp ce sera en direct sur la page. Ah, ah, et tous mu mel ni waa sa liggéey. bien sûr te aussi yéen xabalaa ngeen dem naa leen jox euh, benn cadeau surtout mooy journal final bi c'est tous les événements qui sont déroulés cette année dans cette zone. tous les statistiques le meilleur buteur le meilleur joueur le nombre de buts marqués la moyenne de buts par match les lauréats les forfaits des présidents les meilleurs présidents tout et loolu yéen naa ko jox cadeau pour ngeen yóbbaale ko ngeen pour les informations de la zone. d'accord merci ñu lay remercier en tout cas pour loolu bu baax a baax euh, ma dellu si waat ak Moussa Ndiaye ci li nga xamante ne moom moo nekk grande finale bi ah lan moo nekk mooy yi nga xamante ne moom ngeen dégager pour tey jii nii pour assurer aspect médical bi. waaw tey bu ñu nee si aspect médical bi comme ni ma ko waxee rek. di début jusqu'à fin parce que bu ñu xoolee suñu début championnat ba fu ñu àgg ni tey amuñu dara li nga xamante ne war nañ ko si eh, am na loo xamante ne ñu ngi koy keneen si médical bi mhm. gars yi assuré nañ lépp lu ñu waroon ak zone bi zone bi jox nañu ko te def nañ ko ak waa Croix Rouge jàppale nañu si bu baax mhm. donc lu ñuy wax rek tey euh, final bi ñaari équipe yi mag ñoo koy joué tamit parce que dafa nekk loo xamante ne faa ñu souligner ko quoi. Mhm. muy ASC cosaan ak ASC ndam. Mhm. ku xam ASC cosaan xam ne ASC bu mag la amul lu mu jëlu si département pikin mhm. donc dañ leen di woo tamit ñu gën a xam ne lii final la xam nga ñoom ñëpp benn la benn gox la daal ASC ndam tamit amul lu mu jëlul fii donc di leen ñaanal que la fête soit belle daal. loolu daal laa am lu ma si wax. merci beaucoup que fête soit belle donc monsieur Guèye ci yow laay terminer ci message euh, bi ngay lancé pour jeunes yi en toute personne y' une bête qui en lui certes dëgg la waaye tamit football pour cap fooree la lan ngay wax jeunes pour fair play bi. ok avant ma ñëw si fair play dama bëggoon ñëw si affiche finale bi. parce que c' est l'ASC Thiossane contre l'ASC Ndam. Mhm. l'ASC Thiossane 18 fois champion zonal 2 fois champion départemental le plus grand ASC Laye Sène Dame suñu xoolee pendant les sur les cinq dernières années mooy ASC depuis 2012 su ma juumul finalisé na ñett wala ñeenti yoon. kon ça veut dire que au moins il est régulier ce uh-huh. te ñoom daje woon nañ final daje woon nañ demi final y a même pas deux ans. Uh-huh. boobu ndam moo ko gagné woon. Uh-huh. te cosaan aussi mësul ñàkk final sur le terrain. xanaa benn final la ñàkkoon sur tapis vert loolu c' était je crois en 2013 mu fële contre Gazette après ñu ko pratique au culte. loolu aussi cinquante sur cinquante du naan ko juum daanu rek te que le gagne par rapport aussi à la aux jeunesse à la jeunesse man lu may wax lu may wax je suis aussi enseignant lu may wax jeunesse ñoom lay aussi sama élèves yi dafa am heure jàng am heure foo on a donné 9 mois pour l'année scolaire et 3 mois pour les vacances mais élèves yi seen problème mooy xamuñu heure bu war a foo am na heure bu jàngee dafa am période jàng période foo. au moins suñu xoolee seen parents les efforts qu'ils font pour au moins mettre les dans les bonnes conditions au moins war nañ def sacrifice boobu pour réussir dans les parce que fii ku réussir dans les études je ne pense pas que tu as une un pourcentage très élevé pour réussir dans ta vie. parce que ni soo bëggee gérer sa bopp da ngay gérer sa étude d' abord pour au moins prévenir et nga lijjanti sa ëllëg parce que soo ko lijjantiwul rek ce sera très difficile pour toi te aussi par rapport à l' agression. fii su nee banlieue les gens di agression violence pourtant y a des ministres qui sont nés ici à kii da da si banlieue bi y a des personnes qui sont très qui sont des grades très élevés et sont aussi dans la mais ñun foog nee banlieue rek les gens di violence. man loolu des fois ça me gêne des fois da ngay dem xaar en ville les gens te demandent nga dëkk ñu ne banlieue da lay xoolee benn haine boo xam ne loolu ça te fait mal au cœur mais li ñuy wax rek ku nekk da gëm sa bopp xam na ni. que ça soit le fils que ça soit le soo gëmee sa bopp rek lu nga bëgg ni kam te yàlla lu mu wax foofu ngay jaar kenn mënatu si dara ok merci beaucoup ñu bàyyi waaw di tàggatoo rek comme lu naan final c'est la fête aussi clôture la depuis le début de la saison commencé na ko amul benn affaire amul benn problème pour la violence amul benn problème si affaire sécurité tout est en ordre di remercier aussi le président de la zone Ama Khary kii bii mooy premier mandat mais reçu wuñu fale parce que au moins il a fédéré tout le monde du bugg kenn mer nit loo wax ci booba ngoon moom si sa kaw. man nag kii ñoo ce sont les plus jeunes mais dañu mel ni ñu ñooy magu zone bi dañoo ubbi porte bi amul ñu benn problème ak moom loo wax rek mën naa amul problème des fois gars yi dañu ko mel naa koy tu es te du naan Sénégal su nga baax ba ëpp rek cest à moom. moom lay kiraam moom a mais maa ngi koy remercier remercier aussi tous les tous les membres du comité directeur de la zone et qui est la première femme à intégrer le comité directeur de la zone depuis sa création. Alima Fall des xay yaay booy la xew parce que dama ko dama ko daal dama neex si par rapport à sa personnalité par rapport aussi parce que c' est pas facile nga fréquenter un milieu où la seule qui est du genre féminine. parce que dafa xaw a dafa xaw a métti daal mais maa ngi koy di courage parce que on l' daal di remercier tout le monde di remercier aussi votre que. c'est pas possible nga ñëw ci terrain aussi def reportage di leen remercier parce que c'est la tout c'est la communication tout ce sont des moyens de communication la radio la télévision les réseaux sociaux tout ça ce sont des moyens de communication di leen remercier aussi te yal na leen yàlla jàppale seen liggéey bu baax a baax. ok merci beaucoup euh, euh, monsieur Ndiaye. Euh, ma bëggoon balaa ngaa tàggatoo si tamit nga ñëw ci message de la paix bi pour jeunes waaw pour message de la paix bi dañuy wax rek ñu xam ne comme ni ko sama camarade waxee rek Yoro Gueye que ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay. comme ni nga ko waxee rek bu ñu bu ñu dañuy toll foo xamante ne dañuy reprocher à chaque fois la banlieue parce que bu ñu nee banlieue dañuy wax violence bu ñu nee banlieue dañuy nee coow dañuy maanaam dañoo dem ba nga xam ne suñu étiquette dafa ñaaw dañuy toog di ñëw te pourtant yow mi fréquenté banlieue yow mi dëkk banlieue yow doo sentir loolu donc am na un nouveau type de banlieusard boo xamante ne am na fi te gars yi teg nañ ko fi quoi donc loolu nañ ko fee ñu taxaw ñun ñëpp xam nga ay jeunes lañ ay ndaw lañ comme yoro nu mu ko waxee nekk nañ ñi nga xam ne ñoo gën a nekk ndaw si zone bi ñu nekk nii waaye tamit bu ñu ñëwee mag ñi nga xam ne dañ fee nekk dañ ñoo dalal te dalal boobu noonu mooy moo tax tey fu ñu mënti taxaw tamit dinañ ñu déglu bu ñu waxee gars yi ñu bàyyi xel di remercier le comité directeur bu ñu nee comité directeur bi nag mënoo citer benn tour mais mun nga am koo xamante ne boo ko cité cité nga comité directeur bi yëpp mooy le président bu baax parce que à chaque fois comme ni ko moo camarade waxee rek dañuy ñëw amul luñ ko dul wax dañ koy tooñ di ko kii te pourtant il est plus âgé que nous mais dañuy ñëw ak moom di kaf ak moom da ngay soxla dara sax xam mu ñëw def ko donc kooku dañuy xool ne xam ne kooku Pikine rek ko ñor quoi ñor boo xoolee fu mu jógee ak fu mu agsi yi nga xam ne kii tey dafa bëgg jeunesse bi koo xamante ne day boole day fu foo ko fekk si boole lay nekk foo ko fekk day day nekk li nga xamante ni dafa am li maanaam genre genre mouvement yi boo demee ba jiite zone rek xam nga da ngay mën a ëmb ñëpp quoi nga boole ñëpp te moom franchement ñu ngi koy remercier bu baax di remercier tamit ki nga xamante ne parce que ñun boo xoolee délégué yi fi nekk ñëpp ay góor lañ mais benn jigéen na fi nekk mooy présidente section féminine ñu naan ko Alima Fall moom tamit ñu ngi koy gërëm di ko sant wasalaam di nuyu ñëpp waa Pikine ak gars yi yéen ñëpp ah. mhm. euh, merci beaucoup également xam naa ne yéen a ngi wër kan mooy Ama Khary Fall boobu